Thank you. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki taalibi seen mbokkum talube mahmudan mbakke moom sëriñ basiru antañang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 ci nit ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ba pare bëgg jël diine teg ko ci bunt ginnaaw loxo boo xam ne dana tax xale yu ndaw yi kenn ku ci nekk dëgëru fit ba li nga nangoo def nga di ko def eh, li liñ bëgg a waxtaane foofu bokk yi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 mënees naa waxtaane lu ne ba def ay addis yoo xamante ne mag ñi wax nañ ñu addis yi addis yu dëggu la addis bi mooy soo demee ci soo demee ci euh, soo demee ci ustaas bi daf ko wax ne ko euh, fi ñu njëkkee sax mooy euh, yonente bi sallallahu taala alayhi wa moom moo ñu waxoon one-on-one

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفاري من أهل ذلك لم أرى خوم معه سيات كأصحاب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات عائلات رؤوس لا كأسنمة البعث المائدة لا يدخل الجنة ولا يجد ريئها automatic ministère bi def yu mel jullit ñëpp war ko ko def àjj jullit ñëpp war koo yar war ko teg ci ñoom mais kilifa jiitu loolu bu nga toll xaw ci télé ak gis bi xamal sax weddi waaye weddi ak gis bi man sax wecc dëggal li soxna su jigéen soo su doon def ma ne kilifa ji war seen affaire moom loolu seen affaire moom mbokk yi parce que bu fekkente ne ñu war a def nit ñi ci aw yoon tey ñooy yëngatiku di leen daganal seeni bon bon di leen dëggalal seeni bon bon di leen encouragé ci seeni bon bon mbokk yi jiib la parce que ñu war a yoru yàq jubbanti war a teg nit ñi ci yoon ginnaaw ñoo yor seen yàq woowu di wàññi nit ñi demee ci bokkul safara mbokk yi ci toll ci toll ci kenn ku ci nekk xam nga ne ci jiib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 wax dëgg yàlla bu boobaa tiit tiit tiit jot na mooy ni ma ko waxee léegi ku war a teg ci aw yoon ku war a jubbanti war a andi li mag ñi dëkkoo woon te lii ñuy wax lépp di loo xamante ne say bàyyi ñas say tuuba alxaaji maani ñu magi diine yëpp dëkkoo nañ ci ngir imaw may ne lii lu dëggu la lu am te ñoom ñëpp li imam malik dëggal dëggal yow nga yaroo ci mag ñooñu ba pare dem ne mel ni amul wax dëgg yàlla li ñu lay laaj mooy xam na bopp gën a war a bàyyi xel bi ngay bàyyi xel beneen bi ma ci naqari ba tax may toll dafa wax ni lii wax ni biñ weddee ak gis bi ba pare weddee ak gis bi ba pare dëggal li ndaw si doon wax ne privé la wala dara dëgg ci weddi tuuri yoon ñu ko war a dund ak xar ñu façon ak jàpp adore yoon yooyu mooy suuf te muy lépp saxal téere yëpp saxal ba ko defee ba noppi dafa indi aw lay parce que dafa wax ne lii may wax Tuubaa d'accord suñu basiru si dem saa dem d'accord ma si dem pour d'accord ci nekk ma d'accord ci wax day sëñ Aboubacar bi nekk xalifa général de Tijaan

ànd ci benn ànd ci benn kon mu mel ni am na ci yoo xamante ne kilifa yi yëpp war na ca maas wax ngir nit ñi topp bu ñu topp seen bànneex topp bu topp seen melokaan ba du leen wax def tax na lu baree baree

même les privés parce que tey dafa Khalifa Niass bu fekkente ne ñu ngi tuddee vie privée tey daf si Instagram am nee na ci la def li mu doon def mais Instagram tey da ngay assurer seen dara assurer Ahmed Khalifa assurer keneen assurer keneen kenn ku ci nekk dafa ñu jël ko wala ko ci sa bopp loolu nga ko ciy boole ci sa bopp bu jaagee du ñi nga assurer yëpp yëpp nga war a wax lu ne kon jël boo jëlee loolu def ko ci biir internet boobu. adduna yëpp ko bokk bu boobaa nekkatul vie privée parce que internet du vie privée bokk internet du vie privée du vie privée bokk internet yëpp ko bokk yëpp ko bokk du vie privée whatsapp bi yëpp ko bokk penc la boo xam ne yëpp a ci nekk instagram bi penc la boo xam ne yëpp a ci nekk skype bi penc la boo xam ne yëpp a ci nekk whatsapp bi penc la boo xam ne yëpp a ci nekk loo ci def penc loo nekk loo na mel ni looy def ci digg penc ma parce que penc la penc bi ñëpp ci biir penc kon loo ciy def war naa nekk loo xamante ne du loo xam ne looy def ci biir penc kon lii privé du muy privé tey jii jaabu woon na Ahmed ne ñu ne benn xale bu jigéen ci yoon mun na ko li nga nekk ci que tey dem na di ko cité di ne Ahmed Khalifa mooy borom xam-xam wala ba di ko defaat benn vidéo saaga ma protégé na ko ci mbon gi mu nek ba tax mu ñëmee defaat ak vidéo di saga yeneen mag yo xamantene dañ ko doon bëtt di ko li wax jaadu mu melni bokk yi ci bëgg wax fenn rek la su munta ñàkk ba munta ñak li ñàkk am na xalifa su ko defatee ba noppi na ci tudd ci mais bu ci tudd ci ci diine yi parce que ci diine yi laa ko ci lool barki démb la si si si ak si si ak man soo xalifa sëñ mu sëñ bay si barki dembu la wax ci problème góor jigéen naqarlu ko ñaawlu ko bañ ko kooku du nangu xale bu jigéen buy ko di sol jaww kon di sol jéere yu bon du nangu nit mag ñu ñëw di wetti yonente addi ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam yi nga xamantene mak mag yépp dëkkal nañ ko mag ñu ñëw di ko wetti ak sëy na ak sëy abu bakar ak tam sëñ muntaxa àndu tam moom sëñ basiru abdu xale ak kanen kun ci man di ko ak do ko ci lolu mu wax kon du ci lay ko ñeneen mu melni ni bokk yi xamatuñu fu mu jëm xamatuñu fu mu jëm xamatuñu fu mu jëm tuuma yi ñu doon andi ci biir Sénégal ko weddi bisu set nga dégg ñu tuuma nit ñi sëriñ si ci franc-maçon yi lañ bokk sëriñ si ci nàngam lañ bokk ci nàngam lañ bokk mais ndax lii léegi tey du mooy dëkk ndax yu mel ni tey du nit yi war a jubbanti nit ñi war a teg nit ñi dem di dëngal nit ñi di leen daganal problème problème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 buñ leen yombalal diine ji ba tax ñu yaakaar ne lii ñuy def nii ci diine ji la parce que moom joxe na ay kàddu yu leer Iran dégguma benn communication mais ah, yaakaaruma ne aw ma yaakaar ci ne Iran ndaw moom dana bokk ci yu mel noonu mu ci yaakaar dégguma nag benn communication ndaw si nag na moom borom xam-xam yi mooy ñaar mooy Ahmed Khalifa ak na ñooñu ñooy borom xam-xam Iran nag dégguma benn communication te yaakaar du bokk ci lu mel noonu du bokk ci yëfi tappal yooyu du bokk. Iran du wax lu mel noonu xam naa hmm. ni am lu bari loo xamante ne buñ ci amati kersa parce que du kersa nit kuy jubal nit kuy dëndal su ko defee bu boobaa nag koy gëm gëm ko koy weddi weddi mais bu mu làq kër sàngam li may wax ànd ci kër sàngam li may wax ànd ci donc Touba gus ñoo ànd ci di faral xale bu jigéen boo xam ne dañuy def jaaduwul nekk ci nekk ci internet bi di wax ay vidéo di di def lu ko neex di tontu di dem ci soirée yi di dem di subi yoonu murid sa ànd ci loolu te duñ far ko ci ànd te duñ far ko ci ànd te duñ far ci ànd sax ginnaaw rek eh, xasidaam yi li muy sell sell ak li muy baax baax baax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 liñ doon yare leer kon Sénégal gi nañ bàyyi nit ñi kenn ku ci nekk a defee lu la neex ba noppi nag da wut nit ñoo loolu nga xam ni nga def baax na wala li bëgg def baaw déedéet duñ ko nangu nag duñ ko nangu en tout cas am nay yu bari doy na waaye nag li nga xamante ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo nu ko defal boo ko nara weddi ku man di doon nag danañ wax ak yow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 di xamne li ñu leen wax ku do diglu émission bi ak ku koy man di diglu ak ku diglu woon émission bobé nga xamante ne noonu lañ ko def ci wal fajiri te Ahmed Khalifa fekkoon ko ak ñooñu da xamne ak gis bi lu am la te na dem ci sahihul muslim bu démé ci buntu bi nga xamne moy buntu col ak taar muy buntu kitaabu libas wa siina boo demee dafa ci fekk ak gis bobu nga xamne mom lo ci ustaas bobu ko ne Khalifa ne gis bi amu soo démé da nga ko ci fekk soo demee ci téere imaamu Maalik gi boo ci fekkee nit ku xas nit yar yi ñu la a dóor boo demee soo demee dem ko ci fekk al biir ku xas as gor ku xas as gor di jullit yar yi nga xam ne moom la santaane ñu war la koo dóor soo demee dem ko ci fekk kon ay téere lañ leen yoo xamante ne ku bëgg ne ku bëgg am soxna sii seen lii la soo demee ci njàngaleem mag ñi da xam ne li muy def du dëkk nekkul ci aw yoon nekkul ci aw yoon te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na sol yére yu gàtt tere na jigéen bi sol yére yu yaraax tegee na jigéen yokk ci kawaram yu baree bari tere na ko yonente bi sallallahu alayhi wa seere ba nga xamante ne da nga mën a xam aw yaramam yonente bi daf koo bu leer la ñu ci kitaabu saxiixul muslim soo demee ci biir téere boobu soo demee ci Muwatta imam Malik da ko ci fekk soo demee ci téere mag ñi nga xamante ne ñoo suñu mag Sénégal yi di téere suñ Tuubaa ñi ko ne nga def ba pare nag bind i bokkam ñoom yëpp mun nañu suñ Tuubaa ne nangam lii am na nekk ci téere waa Tuubaa moom di ko weddi loolu nekk kon loolu amul ku ko mën di kon rango seer na xam ne lii nga def demaatal ci beneen borom xam-xam bu dëgg boo xamante ne yàlla rek la fi nekkal nga laaj ko xam li ngay def baax wala Sénégal yëpp tere nañ bu fekkee moo xam kilifa moo xam kilifa keneen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 kenn ku ci nekk du tànn rek ginnaaw yow yaay dem ci télévision yi nu wax du la neex nga tànn ne jëm ci kat te sañ naa koo tuuma parce que tuuma baaxul kenn wërta tuumaal kenn wërta tuumaal ab tarixa kuy wax nag waxee sa sañ-sañ wax nit ñi su leen neexee nii ba su leen neexee ñu benn ba eh, indi indi eh, aay mooy nit ñi bu leen neexee ñu gëm bu leen neexee ñu benn wax dëgg yàlla nekk na ci nit yomb doo xamante ni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 Euh, sëñ biyee ñoom biyee ba ak ak mbokk yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi dégg suñu wàkk mbay ñoom nekk fële ci Amérique waaye sëñ euh, sëñ euh, sëñ wàkk mbay ñoom sëñ sëñ sëñ Abdou Xaadir Seck nekk fële ci sëñ nekk fële ci Suisse ak waa Espagne waa Portugal bàyyiwuñ kenn ndax ñun dañoo mënut a tudd kenn ndax ñëpp suñuy colère la bu demee danañ fàtte kon képp ko ànd ak ñun ci jotaay bi rek ñu lay te di la sargal bu baax a baax mu mel ni kon mbokk yi man damay wax sax ne damay damay wax ne boo eh, gisee boo gisee lu di ci tey bu doon tanee na bari na yu am yoo xamante ne nun duñ ci waaye kii wax bu leen fàtte ne dafay kilifa parce que ñi ko samaoon ju am solo kon tey bu waxee rek genn bu wax ko ba pare teg te ne Touba ànd nañu man may wax buñ ko bàyyee noonu dañuy daan yaakaar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 amaat nañ amaat nañ am liggéey nappkat yi amaat nañ seenum liggéey ndax jamono ji fii ñu toll tey buñ ko bàyyiwul xel yàqu gi ëpp na bokk bokk yàqu gi ëpp na senegal li fi nekk mëni su waxtaane Sénégal li fi nekk tey mëni su ko waxtaane bokk mëni su waxtaane maanaam bon gi fi nekk mëni su waxtaane te loolu dafay dellu si ci émission yu ñu leen a defal bu yàgg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 mais li ñuy défendre jullit ñëpp ko défendre mbokk yi xool leen tey dagi kum neex nga jël sa kum neex nga jël sa kàddu yàq lu la neex sëñ Tuubaa te du uj seet ñu toog di la seetaan kum neex nga jël sa kàddu yàq lu la neex sëñ Tuubaa te du uj seet te mag mu toll sëñ Tuubaa ak li mu jëmal Sénégal kum neex nga jël sa kàddu yàq lu la neex Alaaji Maalik te du uj seet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 kon su ko defee rek mbokk yi li nu bëggoon layal tey jii rek andi ko te muy lu loolu rek lañ bëggoon a andi ci seen jotaay ah, loo xamante ne tey jii mag ñi andi ko te muy dëgg gëm nañ ko te lañ topp bu nu sañoon nag kenn du wax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 te du ci massa and bu mukk kon su ko defee rek seen jotaay bi di alma ci suura euh, tem boobu la andi woon tey ngir bëgg ñu waxtaane ko ngeen doon ci and ak seen mbokkum taalibe mahmoudan mbàkke moom sëriñ basiru antaña mu mel ni kon yi ci waroon a jotal yépp rek dafa mel ni jotal nañ ko muy addis boobu nga xam xamante moom lañ ci jëtoon te wax dëgg yàlla addis boobu euh, ñu waroon ko weddi waroon a weddi yu bare bare yoo xamante ne Eh, ndax gis ngeen bari ki démb waxtaan woowu nga xamante ne benn mbokk doon na ko ci def muy muy wax dëgg yàlla tontuwuñ ci ndax li tax dañuy xam ne ku xamul am na yoo xam ne bu ca waxee mën nañ cee bañ a nañ cee bañ tontu wax dëgg yàlla am na yoo xam ne mën nañ cee bañ a tontu waaye Ahmed moom dafa nekk koo xamante ne nekkul ku xamul dafa xam xam na jublu muy def nag xamuñu waaw lu mu ci jublu xamuñu ko wax dëgg yàlla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 Santa